salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk yi ànd ak groupe Baye Diagal communication nu jot leen fi benn kayitu yëgle xale bu ñuy wax Ibrahima Fall toll ci fukki at ak ñaar dafa xeereer te digg bi nit la di doomi Alaaji Fall ak Yaama sekk ña nga dëkk nag Touba Fall Saloum waaye Ibrahima Fall mii nag toll ci fukki at ak ñaar digg bi nit la te dafa xeereer mi ngi doon jàngi ca daaray Sëriñ Babacar sàll fii ci Touba Sexaw ga dafa réer lu jiitu laylatu mawlidi nabi te mu di gàmmu ga sàkku ci képp koo xam ne gis nga xale buy wuyoo ci turu Ibrahima Fall ci fukki at ak ñaar digg bi nit la te dafa xeereer di doomi Alaaji Fall ak Yaama ma nga dëkke Touba Fall Saloum mu ngi doon jàngi fii ci daara Serigne Babacar Sall Touba sexaw ga dafa jóge nag lu jiitu gàmmo ga ñu sàkku ci képp koo xam ne gis na xale bi mbaa mu dégg ko fenn mu dimbale ay waajuram woo leen ci numéro téléphone yii 78 348 01 39 78 348 01 39 wala 77 617 80 77 617 92 maguen joko groupe Bay communication mi fi nekkal 77 498 69 69 76 498 69 69 70 498 69 69